te kooku doo ko doy delloo nag yàpp la moom mel nit yàlla bu la defar si baati même soo ko xeebee wala nga doyal loolu yàpp moo ko boo woote woo ci tariqa surtout tariqa ci martaba boo woote woo te amoo ko dootoo ko am soo ko amoon tamit ko ñàkk te loolu dafa bokk ci li nit tariqa woote woo martaba waaw benn martaba nekk fi mu nekk nekk daal ci doy na kun tijaan yi wala tubaan yi nekkal ci jaar jeex na